ba léegi nag vote bi di wéy kër bàyyi ba léegi ñu nemmeeku ci ay bureau de vote yu tax seetlu gi nag mooy suba gi la nit ñi gënoon bari lool waaye terewut ci ngoon gi ñu ngi wéy di di wote seenu vote ba tey bon fii amoon na enjeu ce nit ñi dañ teel a dem xam peut-être mu amatoon ci mais je sais pas on garde l'espoir mais xam aussi nit ñi aussi noonu lañ mën ñëwee am na ñi xam ne peut-être xaar ba veille 18 heures ñu jàpp nit yi seetlu nañ ne bulletin de candidat yëpp ñu ngi fi li ciy ñu rek mooy représenté candidat yi am na ci ñu ñëwul non xëy na am nañu ay empêchement ou en tout cas raison yu tax ñëwuñu laa am nañ ci droit donc euh, ma ko yi mi nga xam ne ne wote bi mi ngi jaar yoon ba léegi li ko gën a firndeel nag mooy sëriñ bi nga xam si nag wote na ba génn di gën a xam leen nag moom wote bi mi ngi jaar yoon problème bi non amul benn problème nag wax dëgg yàlla jafe-jafe xanaa dante bu réer daal buñ jaxasee moom la am jox ko beneen waay quoi ci laa nekk suba ba léegi nag mënu ma ñibbi pour topp ko mais mënu ma ko jot daal booba léegi. en RAS amul benn irrégularité bu fi matin on a commencé à huit heures du matin là où je te parle amul benn problème bu fi constaté waaw ça va bien on est content on est ouvert tout monde se parle discuter se déroule comme avant. fëleeg loolee nag ñuy xaarandi ci ngoon gi léegi résultat yi